الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد joxoon jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah mu jëm ci masawu ñi nga xamante ni dañoo faatu wala ñu am ay gaañu-gaañu ci mbir yi yëngu-yëngu yi amoon ci ndakaaru mi ngi wéy sëriñ Youssou Diop ginnaaw bu jeexalee ndakaaru altine juróomi fan ci weeru avril 2021 ma nga woon ci Saalum tànku nemmeekum nag doore ca Ndoofaan la gën kër Moussa Dramé mi nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam ci yëngu yooyu amoon ci Ndakaaru woy juróom moo ko gàttandu sëriñ bi jox ko lu tollook ñaari million ginnaaw boo xamante ni askan wu bari teew nañu ilimaan ji itam ak waa kër gi ñëpp wane seen mbégte te it ngërëm ngërëm li dooreeku ci lii ndax eh, wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek xam ne loxoom ci réew mi ca mbënd ma ca corona ba xaalis bu bari la génnee joxe lii amit mu génnee xat xaalis joxe wax ak li ci ëpp sax mooy kàddu yi muy wax fan yi ca gannaaw tolloon nañ foo xam ne bu dutoon kàddum ko doon demee ne neneen kon nag loolu njukkal la loo xam ne nii ñëpp ku ko yoreel te Moussa mii daanu ci ci ci mbir mi Moussa xasida lañ ko doon wax ndéeg ak taalibeem màggal Poroxaan saa yu ñëwaan fii lay jaar berndeel fi ay ganam daayira bii mu nekkoon Dakar fii lay jaar ak ñoom berndeel leen ñu xewlu ba pare doog a continuer Porokhane wax dëgg yàlla kon lii bu amee tey eh, dañ koy gën a santaat ndax liñ mu noonu mooy taale bi di joxe hadiya waaye sëriñ boo xam ne nag day ñëw ba fi nga nekk mu yëkkati dara jox la wax dëgg yàlla kii ñun li ñu amal li ñuy am daal pour moom daal yal na fi yàgg lool te wér waaw moom daal liggéey bi ngeen di yàlla may leen ci ndam xale dem ci sëriñ Atou Diagne jëwrin ñu ngi koy xalaat bu baax wax dëgg yàlla dañ ko defal ñaan yéen ñi nga xam ne yéen ko wuutu ñu ñaanal leen seen ak euh, seen ak euh, lëggéey seen ak yéene ci yoon yi yàlla matal ko euh, sëriñ bi tabarkalla sunu xol daal sedd na bu ngeen demee daal ne ko waa Saloum ñu nee nañ waxuma rek wa njabootu Moussa Dramé waxuma woy juróom yi waaye waa Saloum nee nañ wax dëgg yàlla seen xol sedd na guy boole gi nga leen boole ci ñoom ak xelaat gi mu ñuy xelaat rek sedd na sunu xol ginnaaw Ndofane Thiamène Sangeen di beneen barab bu nekk ci Saloum ci commune bu Medina Sabax ci la délégation bi dem foofu nag délégation bi ñu ngi leen dalal ci kër Serigne Touba yi ki leen gàttandu di woy juru Mansour Thiam mi nga xam ni moom it dafa bokk ci ñàkk bakkanam ci xew-xew yooyu mu feggoog imam bi ak ki nga xam ni mooy borom dëkk bi askan wi itam ak waa dëkk ba ñëpp génn di rafetlu jëf ji nga xam ne xalif général des Mourides def na ko. lan ngeen suñu kër bu baax yal na ko fi yàlla yàggal ah euh, te lii liggéey. ñun ñëpp de gëdëm nañ tey xam nañ ne it yàlla gëdëm na ndax euh, lii euh, nit bu nekkee ci jaaxle nga dalal xelam dara jiituwut ko te ñun ñëpp sant nañ kii daal moo da baayam yaayam moo fi newut waaye ñun ñëpp ay bokk lañ famille bi yëpp benn lañ wax dëgg yàlla biñ déggee yoon wi noonu la ñu wax buñ déggoon ne sëñ bi ñaanal nañ ko ci Touba it doy nañ rek buñ déggoon ne foofa defal nañ ko fa ñaan li ko baayam wax bu kenn dikkoon it doy na ginnaaw nag bi ñu jógee ci Madina Sabax la ñu jubal ci Casamance bi ñoo naa war a doon barab bu njëkk bi nga xam ne délégation ba fa lay dal bu fa jógee dem Ziguinchor alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu lian qad sahani liwatani bi nafa ma anfani